ñuy def mooy remercier la mais remercier la à travers nous aussi le président de la république nga xam vraiment euh, xalaat na ñi nga xam ni ñu ci secteur yi de la culture et am ay difficultés ci pandémie bi comme secteur yëpp d'ailleurs comme nous may wax toujours nous aussi nous ñu touché ñi nga xam ni euh, pandémie bi daf ñu touché trop parce que nit yi talatuñu solo talu leneen lu ñu lekk ak lu ñu denc nañ ñun nag comme ñun dañ nekk koo xam ni nag suñu liggéey soxla nañ ko ci pandémie bi mooy lan masque yi on s'est rendu compte et je l'ai dit dès le début que ni euh, l'une des mesures barrières yi nga xam ni pour lutter contre coronavirus bi sol masque ci la bokk pour se protéger donc comme ñun loolu mooy suñu métier donc ñu préféré comme monsieur le directeur wax na ko léegi ñu préféré defar ay masque mu tax suñu employé suñu employé ñu liggéey lu ñeneen ñi nga xam ne sax ci yeneen secteur nañ bokk ñuy ñuy jaay tissu ñuy livreur ñu bari ba nu nekk 315 personnes bénéficier nañu ci xaalis bi et que aussi dina tax ñu ci am ay masque ñun aussi mu permettre ñu ñu ci bari ay problème yu ñu amoon ñu jëf ñu résoudre ko ci muy fay seen employé ñu am ay prêt banque commencé ko ci fay vraiment ñu nekk ñu xam ni c'est une excellente chose et que noonu nañ ko gisee nii ñun vraiment nga accepté ko aussi léegi li ñu bëggoon aussi mooy euh, ñun aussi ñu décidé parce que aussi foofu laa waroon commencer que ni processus bi nu mu demee on a été vraiment neutre dans tout man présidente couturier et créateur associé du Sénégal la mais nekk présidente rek tax mu ñeneen ñi amuñu ci accès parce que bari na ñu ci liggéey ñoo xam ni ci fédération bi parce que euh, ministre bi daf ko joxe pour ñëpp jox ko pour pour benn fédération. Euh, créateurs yi nee nañ nettoyé nañ seen i machine huilé nañ ko ñu ngi xaar espérer bu ma génnee fii dinaa indaal beneen commande. depuis pandémie bi am président de la république muy protecteur des arts et des lettres dafa jegle waa monde de la culture bon temps bu 3 milliards de francs si 3 milliards de francs boobu baax nañu bam tegaat ko fii. nous regroupé huit sous-secteurs Deux sous secteurs nous laaj leen kan président kan muy seen rapporteur ñu fab président nous ñu def leen comité d'orientation pour mun a def arbitrage ne ban sous-secteur bi naka la ñaa lu muy am foofu la ñu toddee musique ñu jël un milliard cinq waa cinéma jël euh, euh, cinq cent millions de francs waa euh, art visuel le 500 millions de francs tey lu ñuy rafle toy mooy euh, président bu nekk nous avons cette de 50 millions de francs dañu ne dañ koy jéglal ñu def ñu liggéey ñu liggéeyloo euh, corporation bi avons a un masque masse jox président de la république pour que nous jox ko population loolu lu jar a rafetlu la te loolu maa ngi pour président de la république pour gouvernement bi et tour population yëpp ñoo xam ne en dernière instance ñoom ñoo koy def suba incha allah dinaa jox président de la république en votre nom seen cent mille masques ma ne ko président sa actrice yi ñoo la jox yi ñoom tam pour ñëw en retour dimbali population yoo ñoo ñëw jàppale la si dimbali booy def si population yi si période bi mu nekk